moom la yàlla dogal ne mbooleem koo xam ne jullit nga da ko war a buggu buggu gu wér kéng ngir ne képp koo xam ne bugguloo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa islam des na amuloo is amul amuloo ngëm yàlla loolu taxoon muhammad waxoon ne kenn ci yéen du gëm yàlla mooy ak man muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa la gënal say doom maa la gënal sa baay maa la gënal sa yaay maa la gënal sa bopp ci naa ma jàmbari góor ne ko man de gën loo suma bopp ci namar ne ko yaa ma gënal su may doom su yaay su ma baay waaye man nag suma bopp gën loo bopp yonent ne ko bon nag yow Omar sa ngëm des na Omar ba ñeekuwaat ne ko yaa ma gënal suma bopp mu ne ko wallahi yaa Omar naam naam yaa Omar léegi kay àgg nga sallallahu alayhi kooku mooy Muhammad mi nga xam ne moom la yàlla jagleel ne koo xam ne jullit nga da ko war a bugg waaye nga bugg mboolem saxaabaam yi da nga xam ne bugg saxaaba yi dafa war ci yow dafa war ci yow nga bàyyi foos nga bugg saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ak njabootam wa ahli bayti ak njabootam nga xam ne ñoom dañ gën a foorante ñoom ñooñu nga xam ne ñooy saxaaba yi sës ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ gën a foorante nga xam ne dañ gën a kawe woon ci islaam comme ni nga xamee ne noonu lañ njëkk a duggante ci islaam ku la njëkk dugg islaam moo la gën ku la gën bon ñoom dañ gën a forante comme niñ njëkk a duggante islaam ma wax ne ki gën ñi gën ci sa xeet wi gannaaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki ci gën mooy abubakar siddiq yàlla ko yàlla gërëm gannaaw muhammad abu bakrin moo gën ci li yàlla bind gannaaw abu bakrin nga am omar nga am omar gannaaw omar ousmane gannaaw ousmane ali ibn abi bon gannaaw yonent yëpp nga xam ne yonent yi passé nañ biñ passé abu bakar moo ci gën gannaaw abu bakar omar ousmane ali ñoo gën ci li yàlla bind ñu dem ba am aw xeet ab groupe ñu taxaw fële di saaga omar abubakar usman ba taxaw ne omar Abu ñooy gilli ki matti safara bu ñu demee safara matt yu mag yi mooy omar ak Bakar ak seen ñaari doom yi kan seen ñaari seen ñaari yan aïssa hafsa hafsa hafsa omar moo ko mu may fi yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam muy jabaram aïcha aboubacar moo ko jur may fi yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam muy jabaram la wax ñu ne ak omara ñooy matti safara yu mag ak seen ñaari doom yi mooy kan ak kan yàlla yàlla gërëm leen muy lo xamne waron na lu nekk waron na mëna ko pour nous gannaaw ñi ma la wax nii nga xam ñoo koy jël yàlla bind Aboubacar Omar son Ali seen gannaaw dafa am fukki nit yoo xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen di xool ñu koy xool muy leen yow diw ak diw ak diw ak diw da ngeen dem àjjana ñooñu ñoo gën gannaaw ñooñu ñoo xam ne Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam moo leen taxaw ngeen xool yaa ngay dund mu lay xool nga koy xool mu lay yow da nga dem àjjana yow da nga dem àjjana yow da nga dem àjjana nga xam ne li yonent yàlla moom sallallahu alayhi wax dëgg la sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy Muhammad bon gannaaw boo xamee ne Aboubacar Omar Ousmane Ali passé na dafa am juróom benn yoo xam ne ñoo tege si ñoom ñooñu moo xam ne leen di xool ñu leen mu ne leen yéen da ngeen dem àjjana muy fukk yoo xam ne al mubashiruuna bil janna fukki nit yoo xam ne yonte yàlla moo xam ne nañ jaw day diw ak diw ak diw ak diw da lu neex ndaw lu neex ñooñu ñooy boo amee eh, Aboubacar Omar Ousmane Ali am na ku ñuy wax Talhata bun Ubaydullah Zubayr bun Awam Saad bun Abi kooku mooy Saad mooy koo xam ne moo doon yaay yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaayam la woon ci famille mooy Saad bun Abi ak ku ñuy wax Saïd بن زائد أكو أبو عبيدة عامر بن جراح موي كو خامني مو غور بايا جاس تي دوخو مو تي دا فا ري بايا توتا دنج ديم خير بو ميتي لول مو مسلم لا بايا زفير لا su buré rek bayam dox digënté ba ci mbugo gor mbugo dur mais ba metti mu xamné bété amul mu ray bayam jallu ci zefir ñu ne ko lii nag mu leen leen reyuma suma baay waaye xéeféer gi nekk suma baay laa rey reyum suma baay waaye kan laa rey xéeféer gi nekk suma baay suma baay li may li may gàtt ci li ma bëgg a def moo tax ma rey ko kooku mooy koo xam ne mooy fukkeel bi nga xam ne yonti yàlla moo xam ne ne leen yéen dee da ngeen dugg àjj yàlla yàlla boole ci dugg àjj mbokk yi gannaaw ñooñu nga tëj ku ñuy wax abdourahman ibnu awf ñooñu ñu foor boo jeexalee ab loolu waaw aw nga am ku ñu waaw ñu ñuy waaw ahlul badr ñi nga xam ne ñoo deewoon ca badar muy ñoo xam ne dañu wax ne juróom-ñaar fukki saxaaba lañ juróom-ñaar fukki saxaaba seen saxaaba yoo xam ne kéefee ñu leen ca badar ñoo ñu ngeen sur Uhud dem ngeen maa ko gis ngeen leen seen bàmmeel ak Uhud fële leen suul juróom-ñaar fukki ni ñoo xam ne ñoo xam ne waa badar lañ boo ci jógee nga ñëw ku ñuy wax Fatimatu Zahra bintu rasulullah sallallahu alayhi wa mooy koo xam ne doomi yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam joo xam ne yonent bi moo ko may rakkam bu góor muy ay eh, Ali ibn Abi Talib moom ci ñaari doom mooy Xasan ak Xusey nga am ku ñuy wax Saad bun Xays nga am Bilaal ibn Rabaah ak ñeneen ak ñeneen su ma nga teg ci wa ahlu bay'atu ridwaan muy ñoo xam ne nekkoon nañ arbamiya al alfu arbamia saxaabi junni ak ñeenti téeméer saxaaba yoo xam ñëpp ñu baax lañ bon yajibu alal muslimi an bi wujudi ijlaali ayman islam bon koo xam muslim nga da war a màggal ñii nga respect leen jox leen respect waaye nga am yar suñu leen tuddee tey tey tey bari na koo xam ne yaa ngi woy sa bopp muslim soo déggee ñu wax lu ñaaw ci islaam nga noppi su dee sa sëriñ lay wax nga dee nga reyante léegi su dee sa sëriñ bi diw nangam nga reyante léegi léegi nga dee waaye soo dégg ko ni Muhammad faalewuloo ko Aboubacar Ousmane Ali faalewuloo leen waaye suñu laal sa sëriñ bi nga dee ana islaam ñii ñooy ñoo xam ne li war a bukk te fonk ñooy ñoo xam ne ñooy aali bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñoom bokk ñooy ñooy familier bon Bilaal nii ku ñu war a fonk la waaye buñ ci jógee ngay fonk ja kuy jàng alquran jàng tëddee ko dañ lay fonk waaye nga fonk ñu génnee xam-xam joxe xam-xam nga fonk leen waaye nga fonk ñu wax ci hadis mbooleem ku firi alquran nga fonk nga fonk leen ñoo ñëpp ñu baax lañ dañ war a fonk wa amma ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa ali baytihi fal muslimu yuhibbuhum li hubbillahi ta'ala lahum wa hubbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lahum bon njaboot yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay saxaabaam dañ leen war a bugg lu tax ngir ne yàlla moo leen bugg ku yàlla bugg da ko war a bugg koo ne yàllaa ko bugg da nga ko war a bugg bon dañ leen di bugg ngir ne yàlla moo leen bugg waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf leen bugg yàlla nee na fa sawfa yati bi qawmin يحبهم ويحبونه أزلة المؤمنين أعزة الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الحق لومة لائم يلا نينا من يلنا في نيو خمني دنين بوكو ينتي على محمد ينتي على محمد لين بوكو خمغني خمغني تيجي نباهم ñu bugg muhammad sallallahu alayhi wasallam yéen ko gëm di ko topp di góorgóorlu sax mosuñu koo gis da ngeen dégg rek dégg rek ngeen jàng bon ñu baax ngeen mosuñu koo gis mosuñu gis mbokkam mosoo gis da ko nga ko gëm ko bon ku baax yàlla yàlla dafa la jàmm mbokk bon nii la ne dañ dañ Muhammad Muhammad da leen bugg bi sallallahu alayhi wasallam wax na wala yàlla subhanahu wa taala ci alquran ne محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه يقول لنا نعم. محمد مين مو يونتاب يالا محمد رسول الله محمد مين مو يونتاب يالا بي صلى الله عليه وسلم ما واخني نعم محمد مين بروم ñeenti yoon la في القران الكريم karim bi bi benn muhammad rasulullah yàlla mu ne muhammad mi lay mu yonent bi yàlla yi wallazina maahu ak ñi ànd ak moom ñi ànd ak moom mooy saxaaba yi ashidda wal kufaar ñoom day téefé ree lañ ci xam dóor mu dee ree ruhamaa baynahum dañ day yërëmal seen diggante muslim day yërëm muslim muslim day yërëm muslim dee ko dimbale dee ko dimbale muhammad nee na xayrun naasi anfaahum li naas ki gën ci nit ñi mooy képp njëriñ nit ñi ku jëriñ yaa fi gën koo xam ne yaa jëriñ nit ñi yaa fi gën yonent bi nee na xayru naasi anfa'uhum linnaas ki gën ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ nit ñi waaye nga xam ne nga bàyyi sa xel parce que kiy wax mooy kan jawaami al kalima su waxee nii xamal ne nii la soo waxee ne ki gën nit ñi moo fi gën a ki ëpp nit ñi xamal ne gën a ñàkk njëriñ moo fi gën a bon wala léegi li fa leer ma ne ma ne su fekkee Muhammad dafa wax ne ki gën a baax nit ñi mooy ki nga xam ne moo gën a bari lu mu jëriñ nit ñi nañ xam ne gën a bonte mooy ki ñu gën a yàq njëriñ koo xam lor nit ñi rek nga fa nekkee fu nit ñi nekk nga son nga sonal leen yaa ngay tëgg ay sabar yaa ngay naan sàngara yaa ngay tux taay kenn amul jàmm fu nga dëkk muhammad nee inna sarra naasi man siratan yowma alqiyama man tarakahu naasu ittiqaa fusiya yonte bi nee na ki gën a bon place yowmal xiyaam mooy koo xam ne ñëpp dañ koy moytu ngir dafa def lu bon ba ko moytu koo xam ne foo seen ku mu ngi ñëw bàyyi leen seen xel mu ngi ñëw yonent bi ne nag kookoo gën a bonne place yomal xiyaam inna sor naas man sor yomal xiyaam man taraka naas tu xaa fosi bokk bon yonent bi ne na laa tataxiisu dafa yàlla yonent bi ne na allah allah fi ashaabi wallahi wallahi bàyyi leen xel sama saaba yi billah bàyyi leen xel sama saaba yi لا تتخذوهم غرضا بعدي بين لين فوش مو غناو بو في ديرم بوك نغي فوش مصابي محمد نينا بو كين دي فوش ماي صحابه صلى الله عليه وسلم فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم يونت بي نينا كو خامني بوغ سما صحابه من محمد من غا بوغ موتاخ واي كو باج سما صحابه من غا باج yonent bi nee képp koo xam ne bugg nga suma saxaaba yi man nga bugg ku bañ suma saxaaba man nga bañ wa man asaahum faqad asaa nii wa man asaa nii faqad asaa Allah wa man asaa Allah yuusak an yaxusahu rawahu Tirmisi yonent koo xam ne lor nga suma saxaaba yi man nga lor képp koo xam lor nga ma yàlla nga lor ku yo lor yàlla yàlla na téye sa baat dugg la safara dañ ci bàyyi xel baax yi nga saxaaba yi nañ leen fonk di leen toppatoo leen gën di leen bàyyi xel bu baax mbokk yi ñii ñooy saxaaba yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ne والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك فوز العظيم الله اكبر يلا نينا السابقون الاولون من الانصار من المهاجرين الانصار نيغا خام نيو ديك دوج الاسلام nga xam ne ay sabiqul ñoo ñoo jóge ko màkka dem madina ak ñi fekk madina ñooñu de ñoo gën a baax ñëpp bon ñu jara a bàyyi xel nga xam ne yàlla moo leen fonk yónni fonk lañu yàlla mu ne ma ngi leen préparé jannaatun adnin min jannaatun tajri min tahtiha al-anhaar xaalidina fiha abadan daalika al-fawzul aziim nee na ñooñ day man yàlla maa leen préparé ñu am àjjana boo xam ne àjjana boo xam ne lépp fay fay lépp fay nekk te xaalidina fiha fa la sax duñu fa génnati lii day mooy daalika al lii mooy jekku azim lii mooy jekku dëgg-dëgg jekku lii mooy jekku jekku mooy lépp loo xam ne soxla nga ko am ci yàlla yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam laata subbu asxaab yi yonent bi nee naa laata subbu asxaab yi bu kenn saaga su may saxaaba yonent bi nee na bu kenn saaga su may saxaaba laata subbu asxaab yi bu leen saaga su ma saxaaba yi Gambie fii Gambie fii am na groupe boo xam ne ñu ngi saaga saxaaba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di leen di xas leen di wax lu bon ba dem ba àgg ci ne جبل يونت على محمد صلى الله عليه وسلم في انجالو جام يفي ما بوكو واخنا ريك امام يي ولا واريكا يي نان دي توب راديو يي دي ديغ لوي خيو سي دك بي نان توب سي بي خام لي خام خام لي خيو سي دك واي بو تي سكو توب سي نيغري اوم اوم ريك ديريس ديريس جيما لام ثقافه ثقافه موي لان لي خيو سي بير دك بي جورنال لا راديو لا ني ني واخنا خام ma ne yonte bi neen laata subbu ashaabi bu leen saaga sumay sahaaba laata subbu ashaabi bu leen saaga sumay sahaaba fa inna ahadukum law anfaqa mislu uhudi dahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu sallallahu alayhi wa sallam muhammad nee na bu leen saaga sumay sahaaba su fekkoon kenn si yéen nii dafa jël or or di ko génne am ni jabal uhud di ko génne si góor or du mën a am xaaf benn saxaaba sax benn saxaaba xaafam doo ko mën a am wax nañ leen ne yonent yàlla ma na ne moo Aboubacar moom kenn ngëm yàlla bi boo ko peese woon àddina bi yëpp seen ngëm yàlla Aboubacar ngëm yàlla moo gën a foor ma ne la Mouhamed nee na eh, yéen bu fekkoon ne kenn si yéen dafa génne li am ni jabal uhud mountain uhud ca Medina mën a war a te mu nekk or sax nga def ci yoonu yàlla yonte bi nee na mënuloo am sax xaafi ngëm yàlla benn saxaaba foog naa li ma wax xam nga ko bon ñu bàyyi xel bu baax ne kii mooy Muhammad sallallahu alayhi wa te xam ne mbooleem saxaaba yépp Abu Bakr moo ci gën Abu Bakr moo ci gën gannaaw comme ni Omar Ousmane Ali Abu Bakr eh, soo gisee ma wax ne Muhammad nee na Abubakar moo gën Muhammad dafa wax ne law kuntu muttaxisan min ummati khalilan xalilan لاتخذت أبا walakin ولكن wa sahib صلى الله wasallam وسلم يونت بي نينا su fekkoon damay am xarit day ci suma xeet bi su ma am xarit danaa jël abou bakar muy suma xarit koo xam ne muhammad nee na su fekkoon damay ut xarit yow laay jël xarit kooku yaa fi gën waaye nag suma suma mbokk la suma saxaaba la sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy Muhammad mbokk yi benn bés eh, Muhammad dafa éeg ci kaw mountain Uhud mu ngi dox ak tànkam moom Muhammad ak Omar Aboubacar ak Ousmane Muhammad Omar Aboubacar Ousmane bi ñu doxee rek mountain Uhud ni mu réy réy réy mu yëngatu mu yëngatu mu xamal ne ko Uhud dalal dalal dalal bay sa xel ne benn yonent moo egsi sa kaw ak benn saxaabaam ak ñaar ñoo xam ne dañ leen di rey di rey mooy Omar ak Ousmane rey nañ leen de bon loolu tegtal day la ne Muhammad xam na li war a ñëw sallallahu alayhi wa sallam fa la dégg wax ma ne dafa egg ci mountain Uhud li mu rëy ma wax ne Uhud réyaayu Uhud amul foo ko xàpp ci réyaay e Muhammad dafa egg ci kaw Uhud Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar Omar Ousmane Uhud yëngatu Muhammad ne ko yaa Uhud uskur yaa Uhud dalal dalal dalal dalal wallahi man kenn maa fi nekk sa kaw maa fi nekk man kenn benn yónent ak benn saxaaba mooy Abubakrin ak ñaari saxaaba yoo xam ne dañuy war a rey Omar buñ ko reyee ca sappe buy defar sappe leen taxaw leen bu baax fa lañ ko jamee paaka mu dee nga xam ngeen ko fajar suba teel ñu jam ko paaka ku ko jam paaka abu lulu al majusi moo ko jam paaka kooku la ñuy wooyee tey saay-saay yi ma lay wax nii nga xam ne fii pipeline fii ñu koy wooyee baaba su jaaw diin loolu loolu mooy turam baaba su jaaw diin suñ bàyyi bu jàmbaar bi mooy kan koo xam ne moom rey Sidna Omar ibn Khattab jam ko paaka boo xam dañ ko toogee naka lañ ko toogee mooy paaka bi dañ ko daas ba mu ñëw du ko du ko kii bi semaine semaine ba mu nëb kuñ ko jam nga dee moom la jëm Sidna Omar ibn Khattab koo la ñuy wooyee baaba su jaaw diin suñu bàyyi ju jàmbaar ji suñu bàyyi ju jàmbaar ji mooy eh, abu loolu am ma jiw si mbaam boobu le mbaam boobu mbokk yi lii mooy li xew mbokk yi nañ xam ne ñii dañu am manqaba manqaba mooy dañ am ngëneel ci kaw xeet bi dañ foor lool ci kaw xeet bi kenn mënta wax seen mbir benn bés sidna omar sidna muhammad salaa sallam dafa wax ne fatimatu yow day yaay sangi jigéeni ajjana man mais bu demee ajjana jigéen ñi gën a foor mooy fatima doom yonent yàlla moom sallallahu alayhi mu waxaat awaam ne ko inna li kulli nabiyin xawaari wa anta xawaari hadi umma yow yow awaam yow yaay yaay suma waxtaanee kaay sallallahu alayhi wa sallam yonent bu nekk dafa am ñum dee toogal yow laa war a toogal bon ku foor waaye yonent bi xool na xasana Huseyn mu ne leen man day allahuma ahib huma fa inni uhibbuhuma yow yàlla maa lay ñaan nga bëgg Xasan nga bëgg Huseyn man de dama leen bëgg sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wax na eh, Abdallahi رجل صالح عبد الله بن عمر مي عبد الله بن عمر الخطاب كي ديكو باخلا صلى الله عليه وسلم وحنا زبير نيكو انت اخونا ومولانا يا زبير يا رسول الله بوكنا علي بن ابي طالب جعفر ني ني اي بوكام صلى الله عليه وسلم يونت بي نينا سو بوغي جانغ القران خم القران ديمال تي نينت ني مالاي وخشني موي كان عبد الله بن مسعود salim maula abi husayfa ubay ibn al muas ibn jabal koku moy dugalon gem yalla ca yaman muas ibn jabal moy ko xamne mom yonent yalla muhammad sallallahu alayhi won ñu ko medina dem yaman pour dem fa nek ambassade ambassade islam motax yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam di wax ne suñ doon seet gem yalla mu nga yaman ba yaman yaakaar naa yaman ñu ngi jotee Saoudia xeex yu métti jihaad yi passé xeex yu métti Muhammad nee na foofa la gëm yàlla goor am ngeen goor mooy fa la tëdd sallallahu alayhi wa sallam Muaaz ibn Jabal mii moom la fa yónni yàlla woon ngeen def la yónnee ci dëkk yi fu nekk mu yónni ko mu tooral ko fa comme ni nga xamee ne noonu la yónnee woon eh, Umayr mu ibn Umayr ñu jógee ko Makka dem Madina di fa oote ba def fa lam fa def moo tax yónni yàlla Muhammad bi mu jaaxlee mu am mu jógee Makka dem Madina lu tax Eh, Moussa moo ko liggéey ñooñu ay góor lañ benn at benn at Moussa dem na Madina benn at bala moo ñëwaat Makka mu am juróom-ñaar fukk nit ñoo kër yo xam ne dugal islam tuub nañ nga nekk fii naan ma ay hijab day muuru day muuru boo bëggee loo wax amuloo ko demaloo ci ñi nga xam dañ muslim nga tuwal leen bala ngaa nekk di xasu julit demal ci ñi nga xam ne ay julit naan sangara yaa ngi fi ñii naan sangara ñii fanaan ci mbedd yi guddi nga wax ak ñoom waaye nga topp naan sama yaay suma yaay duy duy ijaab suma yaay duy musóor sama jabar duy musóor amuloo loo ko menn musaab benn musaab na moo ko yónni bi nga xamee na Madina ñëw nañ Màkka ñëw aj Màkka Muhammad mu ngi fa time boobu Muhammad demagul Madina ñu ne ko dañ bëgg nga boole ñoo kenn koo xam fu ñu demee mu jàngal ñu islaam mu boole leen Musab ibn Umayr mu dem fa benn at juróom-ñaar fukki kër dugg nañ ci islaam loolu mooy liggéey bi waaye toog fii di wax ay wax yi fuyum fay amul njëriñ defal ci liggéey mbir mi diine bii dañ koy liggéeyal duñ ko dundee islam yi nekku diine boo xam ne da koy dundee da koy dundal waaye doo ko dundee dañ koy dundal waaye duñ ko dundee bon mbokk yi ñu bàyyi xel ne saxaaba yi ay nit lañ yoo xam ne kenn mënta wax seen ngëneel ba mu jeex yonent bi nee na lawlal hijrati la kontu imran min al amsar bu fekkoon di duna li ma gàddaa jógee ko màkk dem Madina dinaa bokk ci amsar amsar ni la ñoo xam ne ku leen bugg rek jullit nga ku leen bay rek naa fekk nga mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoom lañ fekk foofu ci Madina seetal kii mu as Saad ibn Muaz yonte bi nee naa ihtasat al ars ihtasat al arsi bi mawti saïd yonent bi nee na saayida bi bi mu gaañoo aras fi yàlla toog dafa yëngatu bi nga xamee ne aras bi nga xamee saad dafa gaañu Muhammad nee na aras dafa yëngatu ñooñu ñooy jàmbaar yi nga xam ne ñoo tax li xew xew ku leen fayantoo wallahi lu nekk war naa mën a xew coow li nga dégg yépp ñàkk a bugg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fi nekk moo xam ne jarul la dara jarul la dara bëgguloo ko dara amul ci moom benn soxla saxaabaay faalewu leen xoolal ñu ngi weer tabaski tey mu ngi waaj a dee weer ba ci topp mooy tam xaret ca fukki fan ya groupe bi ma la wax nii dañuy wax ne bés boobu ci lay reyoon Hussein ca Karbala bés boobu fii Gambia duñ mën a xar seen yaram yi génnee deret duñ ko mun parce que am seen dëkk yi loolu la ñuy def dañuy xar seen yaram yi génnee deret ne nga da nga da nga def lañ lañ defal aussi fii lu ñoo def dem jëm hôpital yi Banjul ne dañoo maye deret ñu posé le rapport mu génnee seen deret yi pour ñu génnee deret loolu de du ngir yàlla da ko def pour lan pour def la nga la woon ca Karbala boo gi dafa doy waar dafa doy waar bu ko defee ñu ut benn bis bobu mooy tam xarit fukki fan yi wer weer bi ñëw fukki xaj la ñuy wut xaj bu ndaw ñu ne xaj bi moy Omar ibn Xataab jël ay xeer diko jam diko jam bam de ñu sann Omar ibn Xataab bi ngeen xam jël béy bu ndaw bu jigéen ne béy bi moy suñu yaay Aïssa sa Aïssa bin Aïssa bintu Abubakar Siddiq ne ki béy bi moy Aïssa béy bu jigéen luñ ko def duñ ko dem xeer de day koy def suqi buddi kawari yi buddi ku nekk buddi ku nekk buddi bam de allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد اللهم صل على محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق